Adja Zoum ndeysaan Galmou Nord wala Grand Mbagnick ndeysaan ak Sele Mene wala Boy Sène waaw waaw Galmou Nord à gauche Grand Mbagnick ndeysaan à gauche Sele Mene à droite dimanche 25 février 2024 fii ci terrain Gaal Gui au tournoi ndeysaan de Mbaye Kalam production avec une mise de 3 millions de francs CFA en trois catégories. Wow, wow. Nelson, c'est le même Grand C'est le même Selemena moo daan de Georges C'est le même Grand Bagnik Grand Bagnik à gauche c'est le même à droite waaw waaw ndeysaan Grand Mbagnick jàpp na ko Grand Mbagnick Grand Mbagnick dagg na ko eh na Sélé Méné Grand Mbagnick na Sélé Méné